asalaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di wax képp kuy gan ci chaîne bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bës kolos bi ndax vidéo bu ñu dugal rek eh, di nga bokk ci ñu koy gis di like wéy di commenter également eh, te di partager vidéo yi c'est très important gars yi ñu ñëw ci situation bu am fële ca Bayern de donc également eh, wax ci kaw Sadio Mané bien entendu mais laata ñu ñëw ci loolu dañu dem ci page publicitaire bi te ñëwaat da nga am ay jafe-jafe ci sa wàllu dund jàngoro rab ak cat ba ci sax tëju ci sa wàllu wërsëg lii yépp mën na la gàllankoor ba tax rek mu waaye nag bul xaddi benn yoon ndax xam-xam moom fa mu nekkoon ba tey jugu fa dawal gaaw seeti sëriñ Mohamed Diakhaté yàlla may na ko te xam-xamam kenn naatable wu ñi am jafe-jafe néew kattan ci wàllu sëy sëriñ Mohamed jaxate andil na leen ci ay garab yu baax te wóor gaaw lool ci paj mi ngir jokkoo ak moom wooteel ci numéro téléphone bi 78 201 82 44 ak sëriñ Mohamed jaxate ñëpp nangu nañ xam-xamam ci listixaar ak ñaan Euh, waaw sama gars yi comme ni ma ko rek Bayern actuellement euh, situation ba euh, fa sans bi même si sax leen que Olivier Kahn gars bari ñu doon wax que mais leen archi amul donc amul parce que président Bayern bi weddi mais également kii di directeur sportif bu Bayern di Zix donc aujourd'hui wax na ci Sadio Mané gars yi wax que comme quoi que euh, Sadio Mané wa Bayern dañ ko jënd comme euh, remplaçant Robert Lewandowski donc euh, Salihamidzic Zix moom li mu xamle mooy que Sadio Mané dañ ko jënd comme un joueur phare bo xamante aujourd'hui aujourd'hui fay jouer ailier mais également mën nañ ko dépendre en même temps ci attaque attaque attaque bi donc mu euh ay kàddu yo à maintenir directeur sportif bu Bayern de Munich mom moko yëkëti mom sax ñi ngi xamlé que ni bëgg nañoo jënd ben attaquant bo xamante tay aujourd'hui dina don ngir renforcer nga xamante ne mooy attaque bi gannaaw bi Robert Lewandowski euh, demee mais euh, également kii di Sadio Mané ak ñabri ñi ngi wax kenn dañ leen ci jaay mais kii di Sadio Mané euh, waa Bayern dañuy compte ci moom wax naa leen ko waa Bayern dañu compté wu ci Sadio Mané et que instant bi dese na fa deux ans de contrat loolu mooy wane que ni encore une fois même si médias yi ñuy wax départu Sadio Mané loolu mën nañoo wax que ne aujourd'hui c'est archi faux parce que Thomas Tuchel donc dafa dafa dafay dépendre ci Sadio euh, Mané même si que sax aujourd'hui tay euh, Bayern buñu ñu bëggoo demoon bay jaay Sadio Mané mën nañu wax Sadio Mané du lamb ci marché bi euh, parce que ñaari club bi muy Paris Saint-Germain ak ñi nga ñoy Real Madrid aujourd'hui mën nañu wax que ne bokku nañ ci ñi ñi ñi mëna jënd li nga xamante moy Sadio Mané parce que d'après les informations médias espagnols yi muy Don ballon donc ñi wax que ne aujourd'hui Zidane bu devez feulé ci Paris Saint-Germain parce que fekkee gal ci dafa joggé Paris à Paris dañu bëgg jënd jël Zidane comme entraîneur te Zidane il aime Sadio Mané et que bu fa démé né Sadio Mané mo nek joueur bi nga xamante aujourd'hui mom lay njëkk wax aale ngir euh, jënd ko fofé ci Paris également de l'autre côté wa Real de Madrid tamit seen entraîneur bi Carlo Ancelotti euh, dafa dafa nar a bu saison bi jéxé bu fa saison bi jéxé tamit wa Real ñi ngi indi indiwaat Zidane ci club bi te Zidane bu fa ñëwé tamit li ñu wax que né moy Zidane dafa entamé ngir jënd ki nga xamante moy l'international sénégalais euh, di Sadio Mané kon Sadio Mané aujourd'hui mën nañu wax que ne si un jour boo xamante ne club bu ko bàyyi tamit da ngay sonn mais yeneen club yi dañuy taxaw ngir jënd ko parce que c'est un de classe mondiale c'est un boo xamante ne il exceptionnel sa carrière également moom moo koy firnde li lañ leen andi lool dina wax wéy leen di like wéy leen di commenter jaa jëf.